asalaamaaleykum ñu ngi leen siyaare bu baax dikkaat nañ leen vidéo ci signal euh, soo bëggee xam naka ngay programmer sa SMS euh, ba di ko jot ci sa euh, compte signal naka ngay def soo bëggee xam naka ngay def pour activer loolu toppal vidéo bi incha allah. bësal fii ngir abonné après nga bës cloche bi soo paree nga partagé ko. après nga bës like euh, merci. boo dikkee signal nga dugg ci biir signal boo duggee xam nga interface signal baa ngi nii da ngay ñëw fii ci sa ci sa profil nga cliquer ci kawam boo cliquer ci kawam nga ñëw ci première kii bi gis nga ko nii première kii bi texto xam nga nu ñu ko sax waaye liñ ci daal message euh, multimédia désactivé da ngay cliquer ci kaw boo cliquer ci kaw nga ñëw fii première phrase bi fii. nga cliquer ci kaw boo cliquer mu defal lii affaire tableau bi nii gis nga tableau bi ci kaw mooy soo bëggee di jot say SMS ci ci application eh, bu SMS bi application messagerie bi soo fi bëggee di jot say message da nga koy bàyyi ne soo ko bëggee di jot ci signal bi nga def nii nga xam ne bépp message bu la envoyé te dootul dem foofu noonu ci signal bi nga koy jot nga def euh, ok voilà mu jeex léegi à part d'aujourd'hui euh, de cette activation là lépp lu ñu la envoyé ti par SMS ci signal bi nga koy jot su fekkee décidé nga activer ne soo ko désactiver dootoo ko fi jot aywa salaamaaleykum